asalaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien bi fi Macky Sall bàyyeekoo ba léegi Ousmane Sonko mu ngi door a wax jëmale ci moom surtout waxu révélation yi mu wax dém président Macky Sall Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Moustapha Ba ñi nga kon wàllu koomi réew mi kon am na lu ñu waxut ci bor bi waaye it am na kon xaalis bi fañ ko dugal foo xam ne waru fa wun dugg mbaa amut yoon wuñ ko mën a gisee bor daal ci niñ koy xayma mooy ku yaakaaroon ñu jox la quatre cent mille yow nga moom ko fi mu nekk nii yaa a jox réew mi neuf cent mille ngir bor bi mën a faase wu waaye loolu dañ ko cee xayma rek waaw président Macky Sall ci booba jamono la naan moom wuutu na Ban Ki-moon foofa ca ONU pas ci secretaire général waaye ci génn kuréel goo xam ne moom lañ jël tabb ko ca mu nekk kilifa ga ci wàllu mbiri climat ndokkale Sall ngaari euh, Ousmane Sonko day teg micro ba rek ca cité kër góor gi buggaan yëkkati dal ne ab juuti kuy xaar ci moom ngir mu defaral la ab koom moom mooy dóor nga solo loxo ci ëkk Ousmane Sonko daa cuune te dafa copier PSE waaw moom Bougane Gueye Dany toftal ca eh, ay kàddu yu nenu baxal yu fanweer Massaly dal ne mensonge ak manipulation ci la usmaan Sonko gaaya mi ne waaw Mamadou Ibra Kane tudd gi ñu tudd Amadou Ba tax mu mer ba fut génn yàq keteme Ousmane Sonko ma jàmbal jaañit noonu jàpp ne Ousmane Sonko kon dafa nekk ci période campagne Sénéral nee na lépp luy média ak campagne ak politique ci média yi nan ko dakkal ndax campagne bi tàmbali na démb ci zéro heure ba keroog ñu yegg ci élection législative yi 49 liste la ñu mujj jàpp Cheikh Omar Anne daal ne bëri na ay faay yu am ci mbir yi Lat kon yóbbu nañ ko rëbës ndax huit milliards la ñu koy toppee groupe migrant la ñu arrêté foofa ca Bargny waaja kër Mbay Fall la dugg di ruusu xale bu jigéen ba ca Tataaba ba ni rëll ci